Wa alaykum beaucoup internet yu jéego parle foot nuyu naa leen ziar leen di wax ñi soog a seen bi abonné activer cloche de notification bi te vidéo yi te di ko partager te yéen ñëw ci commentaire yi wax seen xalaat ak seen gis-gis te dañu ñëw wax ci Issa Diop ci ab déclaration bu mu defoon di wax ka du jouer ci benn équipe nationale France ci fatali rek Issa Diop man naa jouer ci ñet équipe nationale muy Sénégal ak Maroc wala France gi nga xamantene ne fa la juddoo. biñ ko introsé ci avenirum ci équipe nationale mom Issa Diop dafa rejeté catégoriquement Sénégal ak Maroc wax que né équipe de France fa la bëgg jouer muy wax que même si je ne suis pas sélectionné. Je suis à la disposition du sélectionneur. Ce sont ses choix. Je continue de travailler pour être sélectionné. Oui, c'est un objectif. J'espère qu'un jour je pourrai évoluer en équipe de France, mais pour cela, je dois encore beaucoup progresser. je suis né en France je suis français je dois toute la France. C'est mon pays. Aller dans une autre sélection parce que je ne suis pas allé en, équipe de France, ce serait un peu hypocrite de ma part. Ce serait aller dans une sélection par défaut. Je suis français, j'aime l'équipe de France, j'ai envie de jouer pour. Et même si je ne suis pas jamais sélectionné, je ne changerai pas. Donc, mon Issa Diop lol la xamale Canal Plus moy nga xam xamle ci biir déclaration bi wax que ni même sax fekkee di Deschamps woowu ko même sax fekkee woowuñu ko ci équipe de France day préféré toog bañ a dem ci benn sélection waaye du mas a choisir Sénégal du mas a choisir fi nga xamante ne mooy Maroc ndaxte loolu bu ko defee dafay doon naafeq dafay doon hypocrite te loolu noonu ñëwoon nañ wax ci lan moo ko waral kon ku ko bëgg a xam rek da ngay dugg ci biir chaîne bi dem seetaan vidéo boobu ma bi ma koy expliquer expliqué naa histoire boobu lépp kon mbokk yi loolu laa leen andi loon wax kon ne de vous abonner activer te ngeen aimé vidéo yi te di partage jaa ngeen jëf